bu leen jàq gëm leen yàlla te gëm ma am naa neeg yu bari ci sama kër baay bu dul woon noonu ma wax leen ko ndax maa ngi dem defaral leen fa ngeen di dëkk te su defaralee béréb booba ba noppi dinaa si yóbbaale leen ba fu nekk ngeen nekk fa yéen itam te fa ma jëm xam ngeen yoon wi tomaane ko borom bi xamunu fu nga jëm kon nan lanuy mën a xamee yoon wi yeesu ne ko man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci baay bi te jaarul ci man ndegam xam ngeen ma ngeen xam itam sama baay lu weesu tey xam ngeen ko te gis ngeen ko filip ne ko borom bi won nu baay bi loolu doy nanu yeesu tontu ko ne ni ma yàggeek yéen te be tey filip xamuloo ma ku gis gis nga baay bi kon nag nan ngay mën a laaje naan won nu baay bi xamuloo ne maa ngi nekk ci baay bi te baay baa ngi ci man kaddu yi ma di wax jógewuñu ci man waaye baay be nekk ci man mooy motal ay jëfam gëm leen li ma leen wax ne maa ngi ci baay bi te baay baa ngi ci man walla boog gum ndax jëf yi ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax képp ku ma gëm dinaa def moom itam jëf yi may def dinaa def sax yu gën a ndaxte maa ngi dem ci baay bi te it lu ngeen ñaan ci sama tur dinaa ko def ngir doom ji feeñal ndamu baay bi lu ngeen ñaan ci sama tur maa koy def bu ma buggee ngeen topp sama te dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalekat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelu yàlla mi yor dégg gi àddina du ko mën a nangu ndax te gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndax te mu ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen duma leen ngeen weet dinaa dellu ci yéen des naa ci kanam àddina du ma gisati yeen di ngeen ma gis dinaa dund moo tax yéen itam di ngeen dund bu kerooge dingeen xam nag ne nekk naa ci sama baay yéen it nekk ngeen ci man te maa ngi nekk ci yéen ki ma bëgg mooy kiy nangu samay ndigal te di ko topp ku ma bëgg baay bi bëgg la te man dinaa la bëgg di la feeñu yuda du yuda iskariyo beneen la woon ne ko boroom bi lu xew bongan nar nu feeñu nun rek te doo feeñu àddina sépp yeesu tontu ko ne ku bëgg dinaa sàmm sama kaddu sama baay dina ko bëgg te nun dinanu ñëw ci moom te dëkk ci moom ku ma bëggal doo sàmm sama kaddu li may wax nag jógewul ci man waay mu ngi suqikoo ci ki ma yónni lii dema koy wax ci bi may nekk ak yéen waaye dimbalekat bi leen baay bi di yonne ci sama tur mooy xelam mu sell dina leen jàngal lépp di leen fettali li ma leen waxoon lépp jàmm laa leen bayeel sama jàmm laa leen jox jàmm ju àddina mënu la joxe bu leen jàq bu leen tiit dégg ngeen li ma leen wax dinaa dem waaye dinaa dellusi ci yéen bu ngeen ma buggoon di ngeen ci li may dem ci baay bi ndaxte baay bee màggi na wax naa leen ko nag léegi bala loolu ñëw ngir bu waxtu wa agsee ngeen gëm lu weesu tey duma amati jot waxtaan ak yéen ndaxte malaaka mu bon mi jiite àddina saa ngi ñëw kooku mëna lu ma dar waaye àddina si war na xam ne bëgg naa baay bi te ni ma ko baay bi sante ni lay jëfe jóg leen nu dem man maay garab gu woor gi te sama baay mooy beykat bi car bu suqi ko ci man te meññul dinaa dog sanni waaye cer bu ci meññ dinaa ko tenqi ngir mu gën meññ yéen nag baay bi setal na leen jaarale ko ci kaddu gi ma leen wax ni beykat di tenqee garabam sax leen ci man ma sax man itam ci yéen ni cër mënu la amee ay doom bu saxul ci garab noonu itam du ngeen mën a meññ ci yéen bu ngeen saxul ci man man maay garab gi yéen yéen ay car yi ki sax ci man te ma sax ci moom dina meññ ndaxte bu ngeen saxul ci man du ngeen mënu dara ku saxul ci man dinañu ko senni ci bit mu mel ni car bu ñu dagg ba mu wow car yi wow nag dañu leen di buub senni ci safara ñu lakk bu ngeen saxee ci man te saxal samay wax ci seen xol lu ngeen ñaan mu nangu lii feeñal sama ndamu baay moo di ngeen di gina meññ tey wone noonu ne samay taalibe ngeen ni ma baay bi bëgge noonu itam laa leen sax leen ci mbuggeel googu ma am ci yeen bu ngeen toppe sama ndigal di ngeen sax ci sama mbëggeel ni ma toppe sama ndigalu baay boo tax ma sax ci mbëggeelam wax naa leen loolu ngir ngeen bokk ci sama bég te seen bos mat sikk sama ndigal mooy ngeen bëggante ni ma leen bëgge genn mbëggeel mënu la weesu joxe sa bakkan ngir say xarit samay xarit ngeen ci kaw ngeen def li ma santaane dootuma leen wooye jaam ndaxte jaam du xam li sangam di def xarit laa leen wooye ndaxte xamal naa leen li ma jële lépp ci sama baay du yeen yeena ma tan waaye man maa leen tan sas leen ngeen dem meññe meññeef gu sax ngir baay bi def lu ngeen ko ñaan ci sama tur li may santaane nag mooy ngeen bëggante bu leen adina bañee xam leen ne man lañu jëkka bañ ñi bokk ci ñoom lañu bëgg bu ngeen bokkoon ci ñoom dinañu leen bëgg ni ñu bëggee seeni ñoñ waaye bokku leen ci adina ndaxte maa leen tànn bér leen looloo tax ñu bañ leen fataliku leen li ma leen wax jaam ginu la màgg sangam bu ñu ma sonalee dinañu leen sonal yeen itam bu ñu toppee sama wax dinañu topp seen wax yeen itam waaye loolu lépp dinañu leen ko def ndax man ndaxte xamuñu ki ma yónni su ma ñëwul woon ne leen dar duñu am bakkaar waaye léegi amuñu lay ngir seeni bakkaar ku ma bañ bañ nga itam sama baay su ma deful woon ci seen biir jëf yu kenn deful kon duñu am bakkaar waaye léegi nag gis nañu samay jëf te teewul ñu bañ nu man ak sama baay waaye loolu am na ngir kaddu gi am kaddu gi ñu bind ci seen yoon bañ nañu ma ci dar dimbalekat bi dina ñëw mooy xel mi joge ci baay bi tey yor dégg gi dina joge ci baay bi ma yebal ko ci yéen moom nag moo may seedeli te yéen itam dingeen seede samay mbir ndaxte yéen nekkoon ak man ci njalbeen nga loolu demaleen koo wax ngir seen ngëm bañ a dinañu leen daq ci jàngu ya te dinañu dem ba jamono joo xam ne ñi leen di rey te dinañu xalaat ne ñu ngi màggal turu yàlla dinañu agsi foofu ndaxte xamuñu baay bi te xamuñu ma loolu nag wax naa leen ko ngir bu waxtu wi jotee ngeen fàttaliku ne yégal naa leen ko waxuma leen ko ci jalbeen ga ndaxte maa ngi nekkoon ak yéen léegi nag maa ngi dem ca kama yónni te kenn ci yéen laajuma fi ma jëm seen xol dafa jeex ndax li ma leen wax moona dee ci sama wàll dégg laa leen di wax li ci yéen mooy ma dem ndaxte su dul loolu dimbalekat bi du ñëw ci yéen waaye su ma demee dinaa leen ko yónnee te bu dikkee dinaa yey niti àddina si ci lu jëm ci seen bakkaar ci lu ci sama njubte ak ci lu jëm ci atte ba ci mbiri seen bakkaar dinaa leen yey ci lu ma gëmul ci mbiri sama njub te dinaa leen yey ndax maa ngi dem ci baay bi te du ngeen ma gisati ci mbiri atte ba dinaa leen yey ndax atte nañu malaakam mu bon mi jiite àddina si boo daan ko li leen wara wax bari na waaye du ko mën a dëkku bu xelum yàlla yor dégg gi dikkee nag dinaa leen gindi ci lépp li ci yoonu dégg ndaxte du wax ci coobarey boppam waaye lu ko baay bi wax mu jottali leen ko dinaa leen yegal mbir yu ñëwagul dinaa ma màggal ndaxte lu mu leen wax ci man la ko jële lépp lu baay bi am maa ko moom looloo tax ma ne leen lu mu leen jottali ci man la ko jële ci kanam tuuti du ngeen ma gisati bu ñu ci tegee ab diir ngeen gisaat ma loolu yeesu wax tax na bu am ci taaliba yaa ñu waxante ne lu wax nii ci kanam tuuti du ngeen ma gisati bu ñu ci tegee ab ngeen gisaat ma ak naam ndax maa ngi dem ci baay bi ñu ne teg cab diir lu muy tekki xamunu li muy bëgg wax yeesu gis ne am na ñu ko bëgg laaj mu ne leen dama ne ci kanam tuuti du ngeen ma gis te bu ñu ci tege ab diir ngeen gisaat ma ndax loolu ngeen di laajante ci seen biir ci dégg dëgg maa ngi leen koy wax dingeen jooy xacc waaye àddina dina bég dingeen jàq waaye seen njàqare dina soppaliku banneex jigéen ju nekk ci mat dafay jàq ndaxte waxtu wi mu wara jur jot na waaye bu doom ji juddoo dina fàtte coonam ndaxte day bég ci li doom ji gane àddina noon nag ngeen di jàkke yéen itam waaye dinaa leen gisaat seeni xol sedd te seen mbég moomu kenn du ko munu dindi bés boobu dootu leen ma laaj dar ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax baay bi dinaa leen may lu ngeen ko ñaan ci sama tur ba léegi leen dara ci sama tur ñaan leen mu nangu bu ko defee seen mbég mat loolu lépp dama ko wax ci ay misaal jamono dina ñëw juma dootul wax ak yéen ci ay misaal waaye juma leen wax lu leer ci baay bi bu keroogee di ngeen ñaan ci sama tur neewuma dina leen ñaanal baay bi ndaxte baay bi ci boppam bëgg na leen bëgg na leen ndaxte bëgg ngeen ma te gëm ngeen ne ci yàlla laa jóge jóge naa ci baay bi ñëw ci àddina léegi maa ngi génni àddina fekki baay bi taaliba yi ne ko léegi yaa ngi wax lu leer léegi gis nanu ne xam nga lépp te soxlawul kenn di la laaj dara looloo tax nu xam ne yaa ngi jóge ci yàlla yeesu ne leen ndax gëm ngeen léegi waxtu waa ngi ñëw te agsi na ba noppi di ngeen ku nekk ñibbi ma des man rekk waay nag déedéet weetuma ndaxte baay baa ngi may wettali dema wax loolu ngir ngeen am jàmm ci man di ngeen am nattu ci àddina waaye takk leen fit yi noot naa àddina bi mu waxee loolu ba noppi yeesu dafa xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne baay waxtu wi tax ma ñëw ci àddina agsi na feeñalal ndamu doom ji ngir moom itam mu mun a sa ndam ndaxte jox nga ko sañ-sañ ci bépp mbindeef ngir mu may dund jeex gi ñi nga ko dénk dund jeex gi nag mooy ñu xam la yow jen na yàlla ji woor ji am te ñu xam it ki nga yónni muy yéesu kirist wone na sa ndam ci àddina ndax li ma motal liggéey bi nga ma santoon léegi nag baay ci sa teewaaye feeñalal ci man ndam li ma amoon ci sa wet laata àddina di sosu xamal naa sa tur nit ñi nga tan ne ci àddina te denk ma bokkoon nañu ci yow nga denk ma leen te sàmm nañu sa kaddu xam nañu léegi ne loo ma joxaan ci yow la jóge ndaxte xamal naa leen kaddu yi nga ma jox te nangu nañu ko wóor naa leen ne ci yow laa te gëm nañu ne yaa ma yónni ñoom lay ñaanal ñaanalu ma waa àddina waaye maa ngi ñaanal ñi nga ma dénk ndaxte ci yow lañu bokk lu ma am yaa ko moom te loo am maa ko moom te ñoom ñoo feeñal sama ndam nekkatuma ci àddina waaye ñoom ñu ngi ci man ci yow laa jëm baay bu sell bi sàmma ci sa dooley tur woowu nga ma jox ngir ñu nekk benn ni nu nekke benn man ak yow bi ma nekkee ak ñoom daan naa leen sàmm ci sa dooley tur tur wi nga ma jox wattu naa leen ba kenn ci ñoom sànkwul lu dul ki aji ji ngir li mbind mi waxoona am waaye leegi maa ngi jëm si ci yow te maa ngi wax nii ci bii may nekk àddina ngir ñu fees ak sama mbég jottali naa leen sa kaddu te àddina bañ leen ndax li ñu mel ni man bañ bokk ci àddina soosu ñaanu man nga jële leen àddina waay nga yiir leen ci ibliis dañu mel ni man bokkuñu ci àddina samp leen ci dëgg ngir ñu sell sa kàddu mooy dëgg ni nga ma yonne àddina noonu laa leen yonne ci nit ñi sellal naa sama bopp ngir ñoom ngir ñu samp ci dëgg te sell ñaana lu ma leen ñoom rek waaye itam ñi may gëm ëllëg ndax seen wax damay ñaan ngir ñépp doon benn bàyyi nañu ñu nekk benn ci nun ni nga nekke ci man te ma nekke ko ci yow ñu ànd ba àddina gëm ne yaa ma yónni boole naa leen ci ndam li nga ma sol ngir ñu àndandoo ni nu man ak yow man ci ñoom yow it ci man ngir ñu gën a ànd nekk benn ba àddina xam ne yaa ma yónni xam ne bëgg nga leen ni nga ma bëgge baay bëgg naa ñi nga ma denk nekk ak man fa ma jëm ngir ñu gis sama ndam li nga ma sol ndaxte bëgg nga ma laata àddina di sos baay yow ku jub ki waa àddina xamuñu la waaye man xam naa la te ñi xam nañu ne yaa ma yónni xamal naa leen sa tur te dinaa ko gina xamle ngir mbëggeel gi nga am ci man nekk ci ñoom te man itam nekk ci ñoom xamal naa leen sa tur te dinaa ko gina xamle ngir mbëggeel gi nga am ci man nekk ci ñoom te man it ma nekk ci ñoom bi mu waxee noonu ba noppi yéesu jóge fa ak yi taalibeem jàlla xuru sedron dugg cib tool yudaam mi ko naroona worru xamoon naa it béreb ba ndaxte yéesu daan nafa dem ak ay taalibeem yudaa dal dem yobbaale mboolom xarekat ak yi alkaati yi ko sëriñ su mag ak farisan ya jox ñu yor ay jum ak ay lamp ak it gannaay noonu yeesu mi xamoon li ko waroon a dal lépp jub leen ne leen ku ngeen di seet ñu ne ko yeesum nasaret yeesu ne man la fekk yuda mi kon nara a nga ànd ak ñoom bileen yéesu ne man la ñu daldi dellu gannaaw ba daanu yeesu laajaat leen ne ku ngeen di seet ñu ne ko yeesum nasaret mu ne leen wax naa leen ne man la bu fekkee ne nag man ngeen di seet bay leen ñii ma àndal ñu dem noonu la baat boobu ma waxoon ame baay kenn sànkwul ci ñi nga ma dénk bi yeesu waxee loolu ba noppi simon piyeer bocci jaasi ji mu yoroon daldi door surga sëriñ bu mag ba nopp ndey jooram dagg surga boobu mu ngi tuddoon malkus waaye yeesu ne piyeer roofal jaasi ji ci mbaram ndax waruma naan kaasu naqar bi ma baay bi sedd mboolom xarekat ya ak seeni kilifa ak alkaati yawut ya jàpp yeesu daldi yeew jekka ko yóbbu ci anas ndaxte anas mooy gorob kayif mi doon sëriñ bu mag ba at mooma kayif moo digaloon yawut yaa ne moo di kenn rek dee ngir mboolo mi mucc bi ñuy yóbbo yéesu simon piyeer ak keneen ci taaliba ya toppoon nañu ko keneen kooku nag xamante na ak sëriñ bu mag ba moo waral mu duggaleek yeesu ci biir kër kilifa ga waay piyeer moom des ci buntu kër ga noonu taaliba boobu xamante woon ak sëriñ bu mag ba wax ak jigéen ja doon wattu buntu kër ga fexe piyeer dugg ci biir mbindaan mi doon wattu bunt bi ne piyeer mbaa yow it bokkuloo ci taalibey waa ji mu ne ko déedéet bokkuma ci boobu defa seddoon ba surga ya ak alkaati ya boyal ab taal di ci jaaru piyeer itam taxaw di jaaru ak ñoom sëriñ bu mag ba daldi di laaj yeesu ci lu jëm ci taalibem yi ak ci njàngaleem mi yeesu tontu ko ne ci mbooloo waxe ci kër yàlla ga ak ci ay jàng fa yawut yépp di daje laa mas di jàngale musuma wax dara di ko nëbb lu tax nga may laaj laajal ñi doon déglu li ma wax ñoom xam nanu li doon wax bi yeesu waxee loolu kenn ci alkaat nekkoon ci wetam dal koy pes ne ko ndax nii ngay tontoo sëriñ bu mag bi yeesu tontu ko ne su ma waxee lu jaadawul wone ko waaye su ma waxee lu jub lu tax nga may duur anas daldi koy yebal ci kayif sëriñ bu mag ba ñu yeew ko ba tey fekk na booba Simon Pierre moom ma nga taxaw di jaaru rekk ñu laaj ko ne mbaa yow it bokkuloo ci taalibey waa ji waaye Pierre weddi ko ne déedéet bokkuma ci kenn ci surgay sëriñ bu mag ba di mbokk ko Pierre cooroon noppam ne Pierre xanaa du yow laa gisoon ak moom ci tool ba waaye piyeer dellu weddi ko noonu ginaar daldi sab